Fatim Fall Asubawjan borom ndangaan Samb ba leen maa ngi leen di jaar waa Fall famille ñu leen di kontaane di leen jeyaar jël lépp teg ko ci loxol kan Bouba Fall ak ki nga xam ne mooy grand Babacar Fall borom simal pudaay Fatim Fall a ngi noonu habar-habar batin farangi non resan Isi si combin jaksar nyono fumin, fu Batim Fall wala Tima Fall